l'actu sur King FM. Mesdames, et Messieurs, bonjour. Le chef de l'État suspend l'acquisition de toute voiture de fonction et de service jusqu'à nouvel ordre. La décision prend effet aujourd'hui et concerne l'ensemble des sociétés nationales et structures parapubliques. Le président Sall l'a fait savoir hier lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres violences sexuelles sur les femmes et les filles entre 2017 et 2018. Plus de 700 cas ont été recensés dans le pays des organisations de la société civile engagent un plaidoyer pour briser le silence des victimes. Elles étaient donc dans le sud du pays pour échanger avec les populations. À bas, la structure chargée de la sécurité de la Grande Mosquée et ses environs a mis la main sur 96 individus. Ils ont tous été remis à la police. La vaste opération de sécurisation a duré deux semaines. Sport, le chef de l'État Macky Sall va procéder ce jeudi à la pause de première pierre du stade du Sénégal à Diamniadio. Cet ouvrage ultra-moderne de 155 milliards de francs CFA aura une capacité d'accueil de 50 000 places. Pour la musique du jour, nous vous proposons Wale Balago sec en featuring avec Momo Dien dans le titre Ndjouga un morceau extrait de l'album Symphonie sorti le 17 décembre 2018. Écoutons. déglu King FM ci 99.4. xibaar yi tënk lay doon dañ koy tambalee kon ak dogal bi njiitu réew mi di président Macky Sall jël ni ki démb ci conseil des ministres bi nee na nag kon. dañuy dal di euh, dakalagul li nga xam si moo di euh, voiture de fonction di auto yi nga xam si mu jëm ci euh, fonctionnaire yi ak service yi loolu nag nee na da koy daal di tàmbalee tey ji ci alxames ji ba jëmmi jamono ndax lim ci daal nemmeeku moo di ak yàq ak kon ak lubal goo xam si dal di ko ciy nemmeeku démb bi mu jiite conseil des ministres bi ci la ko daal di xamle tey te nee na du xaar dara ndax tey ji lay tàmbali ñaawteef yi ñu def jëmale ko ci jigéen ñi muy wàllum yàkkataan ak mbir yu ni mel atum 2017 jàpp 2018 nag jàpp leen ni euh, def nañ ko lu toll ci euh, juróom euh, ñaari téeméeri xale yu jigéen wala sax ay jekk loolu nag tax na ba ay organisation yu fare ci société civile bi daal di nekkoon fële ca Sigicoor doon ko fa waxtaane ak askan wi tey nee nañ ñi ngi tegi pexe ba kon ba képp kuñ ko defati nga mën a daal di yëglu Touba tamit ñi nga xam si ñoo daal di sàlloo wàllum kaaraange ga jëm ca jumaa ju mag ja ñoom nag ñaari ayu bës lañu defoon doon xool kaaraange fi ci noonu ci lan tegee loxo kon lu toll ci euh, juróom-ñeent fukk ak juróom euh, mbenni doomu aadama ñoom ñëpp nag daal dinañ leen di dem yóbbul leen ko jébbal ko kon ñi nga xam si ñoo di waa police tàggat yaram président Macky Sall tey jii lay tekk xeer wu njëkk ci euh, stade bi ñu nara a duppee stade du Sénégal ca Diamniadio lay nekk jàppale ni stade boobee daanaka lépp lay am teyit it dina daal di toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróomi milliards ci xaalis CFA. la ca nara daal di mën dugg ci ay doomu aadama nag dina dem ba ci juróom fukki junni doomu aadama ñu wax kon ci wàllu musique jeexale fa tënku xibaar yi tey Wally Ballago Seck ci way bi mu ànd ak Momo Dieng duppee ko Ndiouga Dieng la ñeen àndil morceau la bu ñu kon ci albumam bi mu duppee woon symphonie fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre 2018 la génnoon. ar yeneen tënku xibaar 8h30 léegi lay kon Al Ndiaye mooy wales Morning King. merci beaucoup Salut. nous retrouvons à 8h30 euh, durant la deuxième euh, tranche de Morning King et à midi pour Midi Culture le grand rendez-vous de la mi-journée fille sur King FM la première radio digitale du Sénégal man di rappeler suñu numéro serveur 88 628 99. 90 33 869 26 33 wala ngeen mën ñu sur page Facebook euh, King FM Sénégal wala suñu site internet www.kingfm.sn en replay toutes les émissions de King FM c'était l'information dans le Morning King